ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جمده ربه وسانه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Ganau bin santir تبارك وتعالى wa رسول الله صلى الله عليه وسلم

ca lay ñuy kan moo di borom bi ak kan mooy doomu aadama li ñuy waxtaan ndax àjjuma yi nga xam ne moom jox gannaaw waxtaan nit ñi ci jëm ci diggante dogal li ci ak li ci suñu mu ci kàddu boo xam ne bëri nañu di ko wax ma bëggoon nag loolu ñuy wax ma teg ko tey seen kanam ba kenn ku nekk xam mooy lan. bëri na lu ñuy wax ñu ne lu waay def boppam daañu di wax ne lu waay leen di ci sa loxo lay naaj daañu di wax ne. yéene néeg la borom moo ci fanaan ay kaddu la waaye am la moo am benn boo xam ne ci laa leen di kilee bi ma leen di jàngal si téere bi mu ngi tudd dogalu yàllaa gën dogalu doomu aadama wala atte yàllaa gën atte doomu aadama ki ko bind mooy ku ñu tuddee Mahmoud Sy Khattab lan la bind ne dafa am benn waay boo xam ne te fànkakat la woon di dem Iraq di dem Iran di jënd ay xar di jënd ay nag di ko yóbbu Suuriya di ko yóbbu Liban bu jeexul mu yóbbu ko Misra bu demee ba foofa mel li nga xam ne moom la doon jaay jeex na mu jënd ci ay bés ak leneen su delloo fa mu jëndee woon nag ya mu jaay ko foofu bu daan dem nag day utaale ay nit yu bëri ay gitt lay jënd di fay ay nit. ñu di ko jàppale ci liggéey bi mu nekkoon benn waay boo xam ne jullitam dafa dëkku woon ututam ci wàllu am-am yàqu dara ci diina guddi ay naafilaam wala bëccëg ay wooram waxum nag alalam alalam ñëpp ko kan moom bokk ko bokk moo dëkk loo ko bokk waaye ku ñëw doole am ci sa wàll yàlla atte nag am benn at mo am na ko tam mu mel ni kii amoon at yii moo am sedd bu ñëw sedd ba métti lool lépp lu mu defoon ci ay ay nag nag yeggee dem ba xam ne yoon yi nga xamante ni ñaan jaar sax dafa dem dëggalaat ci mbóob ko ñax mi nga xam ne ci li julli dana lekk ñax ba yàqu mu dese nag ñeenti nag comme ku baax la ku sàmmante ak diinaam la mu jógee Mawsil benn dëkk ci Iraq wala dem suulee nga dëkk ci xar ne am na fi ñoo ne am na lu muy loolu waaye day dellu waxtaan nga ñoom ne leen jamono nii la tëddee dafa bëgg ñu may ko ba jamono soppeeku li mu jël ci ñoom mu delloo leen ko waaye ba doon moo yegg si dëkk bi mu yegg si nag ci benn dëkk bi mu ñëwee dugg ci benn dëkk na yow ñu fay ko soo mu ne kii dee gànn la doxal ngeen la bu ci tukki waaye bëggoon am fu mu fanaan borom kër gi mën na ko bisimilah jël ñeenti nag ñu ma dese dugal ko ci biir kër gi dem jamono jafe na waaye mu dem ba utal leen lu lekk kër gi ñetti nit ñoo fa nekk borom kër gi. ak jabar ji ak seen benn doom bu góor bu am kër gi itam am am bëriwul si ñaari ñëpp ci seen oto borom kër gi jël gàtt yi takk leen ci biir kër gi dalal gan gi nag ci biir daal di nag reer ñu commencé nag reer ci biir reer bi moom borom kër gi ak jabar ji ñu xamee ci nag ne gan gi de borom am-am la ñu dem ba leer am ñu leer ba pare ñu ñu dugg ci ñiiru seen doom bu góor bi benn doom bu góor lañu am ñaari lal moo fa nekk benn lal bi ci la doom bu góor bi ñu tudd benn bi lalu gan ñu ñëw jox ko lalu gan bi ñoom ñu dem bi ñu demee léegi ñu tëdd ñu toog ba nga xam ne ñu dugg ñu ne ko waaw yow lan nga xam ci nit ko lan mu ne ko ñi jamono jëfe nga xam ne ñun suñ gàtt yi dee na tool yi baaxul amul fenn fu ñu mën a jëm waaye ñu déggee waxtaanam am na lu ko yàlla ñu ma mu ne ko xamalaa wax mu ne ko jël xaalisam am sukkandiku mu ne ko waaw naka laa koy bindee mu ne ko rey ko mu ne ko déedéet mu ne ko yow xanaa xamul ne daal day dem sax ci diine ba toll foo xam ne métti dagan na boo demee ba nga xam ne métti dagan na kon nga ko war sa góob dem yi na man daal bu fekkee ne sama wax àndu moo di ñu ci suba ñu tëj bi balaa ñu ñëwee nag woote la bu yàlla indi rayal gan jëm alalam sonn bi. góor gi d'accord ci ñu toog ba xam ne di guddi passé na boo xaaj guddi gi ñetti xaaj ñaar yi na góor gi jóg ak paakaam boo xam ne dafa jox war na ci mu génn leen ci néegam dem ci néegu xale bi xale bi jabar ji dafa xale bi jàppale la bi mu fukkee ba ci biir te xamoon na mu tëdd fan mooy lalu gàng ak fan mooy lalu xale bi mu jublu ca lalu gàng ba mu demee yuutu bopp ba dagg ba mu ko daggee nag ngir bañ mu yëngatu waa ji jàpp na ko mu xëcc ko ba ñu ko xëccee ba ci biti ñu fekk ndeket yi ñu leen ñu seen doom ana lan moo xew ci guddi gi ba mi ki ñu bëggoon leen ak ki ñu leen di nekkoon leen loolu ci la dellu si rabbana inna nasaluka bi ma min tabil wa nasaluka bi ma min tabil yaa arhamar rahimin

xale yu góor bi nag ñaar fukki at yi des na mosut génn comme kan dafa mën a waxtaan mu ne waxtaan nag gan nga yàgg gan gi di ko wax su ko mën a bëri bi nga xam ne ne waxtaan bi itteel na ko ci la wàccee ci lalam fekk si gan ci lalam di waxtaan di waxtaan benn law jàpp gan gi ngir ñëw mande ak nit ku baax ci bu baax mu ne soxlawul ma yeeku xaaral naa ko bàyyi moom mu nelaw fii maa nga dem ci lala bi dem ci lalu xel yu góor nelaw loolu moo tax bàyyi lu mu ñëwee dafa foogoo ne gan gi moo ko nekk ñoo leen di ko di doon ñu bañ ko xëcc na ba ca xëcc gis ki ñu mënee gis seen doom la ñu mën a ko xam loolu mooy yee nag gan gi dëkkandoo di daw si bi ñu daw si ñëw xëpp leen ndox nag ñu jóg ñu laaj leen li xew lan la ñu ne leen li xew moo di lii leen nekk la borom ci waaye k xew-xew bu tey léegi ñetti y f j ë n ci ñu jël ki nga xam ne moo di w n ñ ñ i ji yóbbu ko solo jël doom ji yóbbu bàmmeel ba gan gi jël bagage am dem yoonam ndaw si toog ci kër gi kër g o o xam ne amatul jëkkër amatul dund amatul doom ñu fa def ñu ngay dugal jëpp j i p p yàlla leen xayoo ba su fekkee ne del bàyyi rek ndax lu tax moo di guddi googu dafa am koo xam ne mu nga fàtte bi la moo di jàllale kon am na ku dul nelaw ba ñu lay kon amal yëg ni ca jamono xol ci la bokk lépp la ñuy fexe mu dégg